ثم دنا فتدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte bu baax ci béréb bii ñu ñëw tey muy bërëb bu miin miin fiit suñu xarit muy Serigne Mountakha Sakho waaye di jiital ci siyaar bi nag ki nga xam ne moo di Mouhamadou Lamine Cherif Aydara ak suñu Cherif Serigne Mouhamed Serigne Al Hassan ñu ngi lay ziar bu baax ak Serigne Abdoul Khadir Serigne Abdoul Khadir waaw di ziar itam suñu professeur euh, Serigne Souleymane Bachir ñu ngi lay ziar bu baax. waaye di ziar nag suñu jëwriñ ci liggéey bi muy sëriñ Daouda si ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew di ziare waa daayira Staten Island bi bu baax a baax ci seen taxawaay ci bëgg lu baax mu mel ne dégg nañ fi kàddu yu baree bari ci wax yu am njariñ waaye tey nag ñu jël suñu kàddu ci kàllaama Kocc di wax ci jikkoy yonent bi sallallahu alayhi wa ab jullit defe naa ku génne ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa dara du ci des bu fekkente ne ñun ñëpp ay jullit lañu yàlla joxoñ nu yonent bi sallallahu alayhi wa ne roy leen ci moom te mu mat sëkk royukaay kon defe naa ne jullit ñi bu ñu dajee fu mel nii war nañoo jël lu ñu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa yonent bi nag bi ko yàlla tagg ci jikko la ko tagg wa innaka la ala xuluqin azim taggu ko ci bari ay julli taggu ko ci bari ay koor taggu ko ci bari ay yeneen jàmm yàlla yu baree bari waaye daf koo tagg ci jikko mu mel ne kon nu itam bu nu dee roy yonent bi naam danañ ko roy ci jaamu yàlla yi muy julli yi ak koor yi ak yeneen yi waaye ndax noo koy roy ci jikko yu rafet yi ndax noo ngi roy yonent bi sallallahu alayhi wa ci jikko yu rafet yi te moom bu fekkee dafa wax ne innama bu'istu li utammima makarim al axlaaq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwagul waa Makka amoon nañ jikko yu baax waaye daa doyut yonent bi ñëw di mott li jikko yooyu mooy innama bu'istu li utammima makarim al axlaaq yàlla tàggu ko ci wa innaka la ala xuluqin azim kon dafa mel na nun sunu wàll mooy nu roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikkoom yu baax yooyu la bokk na ci jikko yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy dénk nit ñi li nga xam ne moo di rafet jikko rafet jikko ndax sunu jamono jii ñoo ngi royee ci yonent bi sallallahu alayhi wa li ñuy tuddee jikko ju rafet mën na noo fonk julli yi fonk koor yi lool ak jaamu yàlla yi waaye léeg-léeg jikko yi manqué ci suñu société te fekk booba danoo desee dégg li nga xam ne moom la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne wax xaaliqi naasa bi xuluqin xasan nañu jëmbat jikko yu rafet ci suñu diggante ak suñuy jëflante mbokk yi jamono bii jikko yu rafet néew na lool sa manqué na itam ba tax na lu neex waay wax fu neex waay waxee ko fa rawante na ci média yi ak ci yeneen béréb yi loolu kon li muy wone rek mooy royunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikko yu rafet yi nga xam ne moom la digle takat jikko yu rafet ku ko génne ci diine dara du ci des jikko yu rafet ku ko génne ci diine dara du ci des loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla joxoñ nu ko ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana na ngeen roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikkuy rafet ci maandu ga ci ñeme dëgg mu mel ne am na yetti dëgg yoo xamante ne bii bu fekkoonte ne roy nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa jàmm rek mooy am ci sunuy société bi ci njëkk mooy as sidqu fil kalaam dëggu ci ay wax xoolal jamono jii ni ñàkk a dëggu ci ay wax bare ba tax na kenn wóoluwut kenn politicien bi citoyen bi wóolutut benn politicien lu tay lu tax adamu sidqi fil kalaam ñàkk a dëggu ci wax beneen bi ci des mooy as sidqu fi niyaat muy dëggu ci yéene loolu waaye mën a wax ba falu toog tey tegg la mu waxoon teg fële la mu doon wax ak la muy def doon benn ñetteel bi mooy as-sidqu fil a'mal muy dëggu ci jëf yi gis nga yi nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax mu dénk ñu jikko yu rafet su nekkoon ci ñun suñ société yëpp baax waaye ginnaaw as-sidqu fil kalaam amut as-sidqu fil niyya amut as-sidqu fil a'mal amut lu fiy des ñuy wax luñ du def di def luñ du wax société bi di yàqu ba abadan kon jikko yu yonent bi ndekete moo mat a bu fekkonte ne tënku nañ ci am njàngaleem tënku ci jikko yi ko yàlla joxoon nga xam ne moom la nekk woon ak noonu suñu société yépp baax suñu réew baax kon du ñu tumuraanke njiit yu baax du ñu tumuraanke ñoo xam ne ñoo jiite du ñu ñàkk ñoo xam ne ñoo jiite sunum réew ci anam ga gën a rafet moo tax yonente bi ne woon aleykum bi sidqi bu dëgg amul dara du munta baax mu mel ne danoo manqué qualité dëggu yooyu ci sunuy nit ñi nga xam ne ñoom la jiital dénk leen sunum réew waaye itam dénk leen sunu sunuy société kon jikko ju rafet lu mat roye ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla ne yaa ayyuha allazina amanu taqullaha wa kunu maa saadiqin na ngeen gëm yàlla ragal yàlla te ànd ak wooy dëgguñi kon julli doyut de woor doyut waaye dëggu dafa bokk ci mbir mi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane ko moo tax dëggug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àggoon na ci lépp lu mu masaa wax def ko ba ñu ba tuddee ko as saadiqul amin ku dëggu ki loolu nekkoon qualité yu mag a mag ci yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci jikko yu yonent bi nag tabe ak nangoo joxe sa alal te yàlla rekk tax kon tabe googu it war nañ koo jëmbat ci sunu bopp ba fépp fu ñu laaja lu jëm ci yoonu yàlla lu ñu jëm ci lu jëm ci néegu yàlla ñu walbati sunu alal man koo jëmale ci yoon loolu bu baax a baax moo tax bokk na ci jikko yonent bi li ñuy tuddee suufeel sa bopp nangoo suufe nangoo yem ak nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan toog ak nit ñi di lekk ak nit ñi di toog ak ñoom fi suuf li feeg ndigal ak tere jógut duñu xàmmee kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ci jetaay bi ndigal ak tere rek mooy tax ñu xàmme ne kii kat mooy kilifa jataay bi bu dul loolu day yem ak ñëpp ci ab jataay akub toogin kon xam naa li ñuy def ci diggante bi rek bala ñuy dellu siwaat bu fekkee néegu bi yàlla dañu fee dajale nu war a dimbalante te yàlla tax wala taxawal diine yàlla ji jàppale ko yàlla ne képp koo xamante ne bii taxaw nga néegu yàlla yàlla tabaxal la ab néeg ci aljanna képp koo xamante ne bi dund nga sa alal ci yoonu yàlla yàlla fay la ngën ji pay bu doon benn ñu fay la fukk ba lu ko ëpp nu roy ci jikkoy Seydina Ousmane radiyallahu anhu ci tabe ga ci nangoo joxe àllam ba jël léppam joxe keroog bis ba nga xamante ne bii yonent bi sallallahu ngi xool gaa kan moo ci ëpp yéene ci yàlla kan moo ci ëpp lu muy def lu baax ana ku wooroon tey jii ku tàllal loxoom Ousmane ana ku saraxe woon ku tàllal loxoom ak ñeneen ak yeneen ak yeneen ci yu baax yëpp mu dajale ko def mbokk yi kon lii sang bi wax léegi maa naqasat maalun min min sadaqa maanaam amul jenn alal joo xamante ni bii asaka wàññi na ko maanaam sarax joxe sa alal ci yoon yàlla dana ko wàññi daf koy yokk kay maa naqasa maalun min sadaqa amul jenn alal joo xam ne joxe ci ci ngir yoon yàlla daf koy yokk kay waaye du ko wañ kon nag bala noo dem tey dama soxla léegi 1000 dollars fii ci jataay bi ñu delli ko ci néegub yàlla bii ak li nga xamante ne bii moom lañ ci war a def lépp tudd nañ fi ay mille mille dollars kon fépp fu toog loo am tàmbalee ko ci 50 dollars 20 dollars ba 10 dollars képp ku ma ko jox yàlla boo ñàkkati ci àdduna te yal na la ko yàlla denceel fa nga xam ne fa la fay àgg kon mbokk yi liggéey baa ngi noonu. jog leen jigéen ñi laa ci njëkk a jiital nag doog cee góor ñi tey nag bu leen jigéen ñi man moom dégg naa ñu ne jigéen ñi ñooy góor yi léegi ñooy takk tuba waaye góor ñi nag li ngeen di joxe dama koy berfe bismillahi rrahmani rrahim wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa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 ثم دنا فتدلى